jàng ku handicapé mënul ko def maintenant loolu aussi il faut ñu xool nan la ñuy jàppalee ñoo ñi nga xamante ni c'est des sénégalais mais yi nga xamante dañuy dund avec un un handicap mm-hmm. voilà dafa mel ni euh, voilà Père Lamine maa ngi lay nuyu allo Père dafa mel déggante bi Père Lamine maa ngi lay nuyu Euh, ñu gis tout à benn image bi jàll que ne da nga am euh, soog ci tali bi maa ngi sant bu baax a baax. allo. waaw mu ne maa amuloo gaañu gaañu rek euh, naka nga def. yaa ngi ci oto bi doon di dem. Uh-huh. lan moo xew oto bi dafa dafa renversé wu lu xew exactement. voilà je pense que. Mm-hmm. Euh, mu ngi mu ngi noonu. Euh, xam naa peut-être du ñàkk euh, on en tout cas mu ngi noonu wax na ko yaram mu xaw a tëccu parce que oto bi aussi dañ ko gis mu xaw a renversé. Mhm. Euh, xam naa nag fu mu nekk nii dina xaw a compliqué pour mu yëkkati kàddu. Euh, mais ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax rek euh, yàlla fëgg boppam. moo mën a jógaat nekk activité parce que koo xam ne la aussi artiste la monumental ku yàgg yëngu ci wàllum art. et nañ ko tey bi projet bi génnee image moo ci nekk mais terewul gis nañ ko aussi mu ànd ak ay xale doon xamal ak Sénégalais yi lan moo ne ci boobu mhm. en tout cas ñu koy ñaanal bu baax a baax xam naa rek peut-être bu fekkee baaxaat na Euh, le temps aussi peut être ñu bàyyi cun bu continuer euh, on verra on verra ndax nañ mën a ko am am première réaction mm-hmm. waaw loolu la maanaam euh, école moom une dafa war a nekk une école inclusive école boo xamante ni école pour tous les fils du Sénégal que ñu am handicap wala ñu bañ a am handicap loolu na état moo ci njëkk a joué mooy tey xale yi nga xamante ni dañuy judduwaale ak gàllankoor ci seen wàllu cër mm-hmm. état aussi fexe ba bu ñuy dem école ñu am maanaam bu jëree sax nga def ce qu'on appelle une discrimination positive pour ces gens-là parce que danoo am handicap mais au-delà de par exemple bu ñu amee ay sax mais aussi ci recrutement bi daf ci war a feeñ par exemple soxna soos ñu investir ci liste yi mm-hmm. pour la première fois te ñooñu ñu am aussi ñoom euh, ñu am fa cër parce que nga am laago tekkiwul na doo waroo doon dara ci réew mi mm-hmm. euh, donc yeneen réew yi ay nit dinañ am laago yu jox leen ay responsabilités yu mag parce que nga am laago ci tànk tekkuwul na sa xel mun na euh, neex lool mais aussi nga am xam am compétence yoo xamante ne sa réew da soxla. Mm-hmm. donc lu fekkente ni da ngay jël nag benn waay parce que dem mënul dox wala benn loxo bi dafa am problème nga isolé ko mais su boobaa li li mu waroon jëriñ. askanam ak réewam mun na bañ a nekk loo xamante ni moom occasion lay doon ci moom moo tax je dis bon côté boobu état mhm. war na gën a mun góorgóorlu et boobu nga xamante ni moom mooy la loi euh, bi favoriser l'égalité des chances ñu gën koo euh, jëmmal ñi nga xamante ni ñooñu ñu gën a gis seen bopp aussi ñu bañ a sant ne dañ leen frustré euh, comme passage maa ngi rafetlu sa déjà démb euh, actuellement jamono ci mhm. boo demee Maroc Mali euh, ñu ngi fay def lu ñuy tuddee le forum africain euh, pour la promotion des personnes de petite taille mooy ñi nga xamante ni comme dañoo tuuti dañuy gàtt nga xamante ni ñoom ñenn ñi dañuy am kersa ñuy ñu ñuy xool nit yi. comme mhm. si ñoom ñoo def seen bopp loolu. loolu yàlla moom la ko def mais ñooñu tey ñu ngi ci forum day Afrique mhm. dajale na su ma jumulee quatorze pays Jamila euh, Jamila. moom moom moom daf ci dem. Mhm. donc démb rek ñu ngi déggante donc ñooñu aussi au delà de ñu ngi xool nan la autorité étatique Afrique yi. nan la ñuy gën a doole nit yooyu seen réew. et loolu dafa am solo et les parlements aussi africain dañ ci war a liggéey et parce que ça rentre toujours dans le cadre justement de la promotion des personnes vivant avec un, un handicap mm-hmm. donc et loolu dafay tax ñoom tamit ñu bañ a sentir ne dañ leen di isoler wala marginaliser wala exclure leen ci société bi Mhm. voilà muy noonu Bamba bu fekkee ne amul leneen ñu daal rek. Euh, pense que c' bon parce que war nañu fi ñëwaat ci kanam. ak Amadou Diallo qui est expert financier. et puis ci ñi nga xam ne xaatima na ce fameux plan euh, Sénégal euh, plan Sénégal émergent dina fi ñu teew ci kanam tuuti ànd ci également ak Cheikh Diaw nekk membre parti Pastef ak élément Baxte incha allah. voilà muy noonu jaajëfal ko Bamba Thioune di la jaajëfal bu baax a baax di la jox rendez vous suba incha allah. merci leen jaajëfal suñu ay loolu la woon. kon rek daal di euh, décortiquer comme ni ngeen ko gisee ak Demba Thioune actualité bi di leen jaajëfal yeneen tax na di jaajëfal ci Anta mi nga xam ne moo nekkoon ci régie bi waaye nag dañuy enchaîner ak li nga xamante ne ni euh, moo di wax sa xalaat dañ leen di permettre yéen tamit yéen euh, sénégale yi ngeen daal di dugg euh, joxe seen xalaat ci li nga xamante ne nii moo daal di rek xew tout ñu gis ko projet bi nga xam ne Pastef daal di nañu ko teg wala sax Ousmane Sonko ak gouvernement am daal di nañu ko rek fésal tout à sànq seetaan nañu ko ci jam ñaajo ñu daal di rek indi ay axe yu bari yéen ñi nga xamante nii yéen yéen a ñuy euh, seetaan dañ leen di permettre ngeen rek daal di euh, dugg euh, joxe seen xalaat ci li nga xamante ne ni gis nañ ko mu di rek projet bi nga xam ne vision Sénégal 2050 la mu nekk mbir mi nga xamante ne nii gis nañ ko ñu ngi ko teg ci quatre axes ndax ñu ngi ko mandargale eh, benn rek eh, baobab waaye ñu def ci li nga xamante ne nii eh, li njëkk mu di bonne gouvernance capital humain ak équité sociale waaye tamit li nga xamante ne nii moom moo di économie compétitive naka ngeen jàngate li nga xamante ne ni moom Ousmane Sonko ak gouvernement yam daal dinañu ko fésal tout à l'heure ci jam ñaajo mën ngeen a dugg daal ci joxe seen xalaat ci 77 842 19 di 77 842 19 19 yéen ñi ñuy seetaan di ay internet ñu jox leen ngeen joxe seen xalaat ci projet bi nga xamante ne ni moom Ousmane Sonko daal dina ko fésal ànd ko ak ay gouvernement yam waaye tamit ñu gis ci teewaay ki nga xam ne moom moo di le président euh, Bassirou Diomaye Faye daal nañ ci fésal lu bari mu di rek jafe-jafe yi nga xamante ne ni gouvernance amoon na ko ñu jàpp ne sax dañu ko fragiliser woon ñu daal di xool am na euh, ki nga xamante ne ni euh, moo nekk ci ligne bi dañu koy euh, jël allo. Euh, ñu ngi lay fay bu baax a baax sant yàlla. ci alhamdulilah. émission mhm. bi. gis nañ ci léegi ci euh, li ñu war a wax sa xalaat su ma ci woon a wax ci sama xalaat. ñu ngi lay teelu bu baax a baax sëñ bi. depuis ce matin léegi ñu ngi doon seetaan. Mhm. ci amoon euh, jam ñaajo effectivement mhm. waaye man dama jàpp ni euh, li ci mën a am daal lépp liñ ci mën a tënk yàlla ko suñ borom mottali ndax yàlla mooy mottali jaam yéene rek la am mhm. Mhm. gens gis nañ ko ñu nit liir nañ ko gis nañ ci am na ci yu bari yoo bii ni moom ñu bëgg teg pour Sénégal xaw ma euh, deux mille cinquante xaw ma lan. am ci yoo mhm. xamante ni ñoom même daanaka ñooy am rek. waaye foog naa xanaa bii la Sonko waxoon ni moom la quatre mille cadre euh, daal di daal di écrire déedéet. waaw loolu daal man mooy di sama mbetteel ndax ñu lii nañ bi lii seetaan nañ ci bi lii nañ ñu programme ci bëgg a teg mais moom bu Macky moom lii leen wute moom wax dëgg yàlla bariwul. kon nag li ci des nag yàlla na ko yàlla mottali loolu daal la ñuy ñaan. mi ñu jaajëfal ko bu baax a baax mën ngeen def ni moom euh, daal di def 77 842 19 19 77 842 19 19 daal di joxe seen xalaat ci Sénégal euh, vision 2050 bi nga xam ne moom le premier ministre Ousmane Sonko daal di na ko fésal tey jii euh, ca jam ñaajo di projet bi nga xam ne dañu ko def ci ñeent axe yu gën a fés ci nañu ko mandargale mu di bon gouvernance capital humain équité sociale waaye tamit. njiitu économie compétitive aménagement optimal et développement euh, durable di ay axes yi nga xamante ne ni daal nañu ko fésal ànd ko ak ay experts ñu jël euh, keneen ki nga xamante ni moo nekk euh,